ba pare jox leen xaalis jox leen oto ne leen dem leen ngeen dajji principe bu l'islam ñoom ñu taxaw ne waaw dañuy dem daaj ay nee nañ ay imam lañ Omar Diène moom du imam ñu dem taal seen i oto dem di wër di dajji principe bu l'islam naan loi bi nga xam moo fi nekk pour l'homosexualité kii nag kërëb kërëb ba pare mu dem attaqué benn benn benn benn imam ne da koy waat encore pour toroxalaat ko loolu ñun duñ ko nangu euh, duñ ko accepté loolu moo waral euh, ñu invité la d'ailleurs mhm. hmm, si euh, combat bi waa ànd sàmm jikko yi mhm. di mener ba yegg si à un moment où dañu def proposition de loi ba proposer ko assemblée nationale. pour mhm. ñu criminaliser homosexualité au Sénégal. Mhm. mais la réponse du chef de l'État était claire. Mhm. sur la question moom mooy li mu wax euh, premier ministre bu Canada. wax ko Barack Obama wax ko ci seeni dëkk. moom mooy tant que moom mu ngi fi. loi bi fi nekkoon dara du ci soppeeku dafa mel ne da ngeen bëgg lëntal xelu nit ñi d'après le discours du président Macky Sall. lan lan mooy ndey ñu am beneen loi bu mhm. fekkee loi bi fi nekk li ngeen di aaye wala da ngeen a bëgg jaxase Macky Sall ak nit lan moo nekk ci loi bee ba ngeen bëgg beneen loi bu bees. waaw xam nga Pape Sidi Fall dafa am lu xew loi boobu c'était depuis quand 1965 la xaw ma. waaw xaw ma 69. article 319 la xam day wax mu ne acte contre nature commis publiquement ñoom ñoo wax ñoom ñoom ndaw état ba ñu amee EPU. ñoom ñoo Nations Unies nee leen acte contre nature bi ñu wax article 319 bi amul problème homosexualité ñoom attentat à la pudeur lañ ko jàppee loolu la mais du problème du mu indil la problème. maanaam góor ak góor mën nañu sëy jigéen ak jigéen mën nañu sëy. waaw bu ñu ko defewut ci mbedd mi. waaw loolu am nañ ci droit bi. loolu lañ wax ñoom te vidéo yaa loolu la loi wax. te vidéo yaa fi loolu lañ wax dañ ne acte contre nature commis publiquement ñu ne ñoom te attentat à la pudeur lañ ko dugal dugal lañ ko ci homosexualité. loolu dafa leer de Pape Sidi ba pare ñu gis ministère du genre Ndeye Saly Diop Dieng bi moo ko géré genre ku ne xam nga mooy lan tu es toujours sur le net demal tapé Google mon frère genre mooy bisexuel homosexuel transsexuel ku la wax leneen dañu lay nax rek parce que mënoo ne homme femme famille boo nee homme femme nee nga famille genre mooy lan kon luy genre luy genre cest à ku pour ñu respecter sénégalais yi xam ne nit ñi dofuñu Macky Sall dafa créé ministère du genre mu ay subvention yu bari yoo xam ne day jóge ci góor day dugg ci ci àdduna bi dugg ci fii ndax homosexualité hmm? ñu xam ko ne ci dëkk bi di ko gëstu xam ko mu am ay association homosexuelle yoo xam ne c'est reconnu ministère de l'intérieur moo leen jox récépissé ñu xam ko mu nekk ci dëkk bi ñoom ñuy dox en catimini di doxal ndànk ci suuf bañ ko officiellement nangu ko officieusement muy dugg ndànk si dëkk bi ñun loolu dañ ko xam léegi nag moom malchance am moom il mal barré xam nga parce que ànd saami jikko dañoo xam lu xew topp àdduna bi les nouveaux droits yi nga xamante ni euh, ONU da ko dugal daf ci am droit boo xamante ni léegi góor jigéen waxtuma la sax am nañ droit nekk góor jigéen waxuma la dañu am droit kenn amatul taxaw sañ-sañu taxaw ak foo a nekk di discrimi taxaw di diingat wala ngay jéem a nekk ay homophobe homophobe bi ci lañ criminaliser dañ bëgg a criminaliser léegi ñoom duñu teg droit bañ ngóor jigéen waaw amoo droit bañ ko loolu dañ koy interdit ah, loolu la ñuy wax homophobie léegi loolu nag tubaab bi dañ ko teg programme boobu nag bépp goor bépp euh, dëkk boo xam ne bokk nga Nations Unies da nga accepté loolu charte yooyu noonu da nga koy accepté parce que ñoom dañuy wax ni Nations Unies bépp texte boo xam ne jubóo nañ ko fa ñoom waxtaan ko ba nga xam ne jubóo nañ ko texte yooyu moo supérieur constitution dëkk bu mu mën a doon c'est à appliquer sinon état délinquant lañ lay def waaw léegi loolu mënu fi nekk. Euh, le gala de euh, Obama ñëw fi i Sall ne ko ñun pareeguñu te pareeguñu ak ak duñ ko def bokkul quoi yow soo ne ma Karim ñu commencé ma ne non pareegu ma mooy da ma pare pour ñu commencé mais su ma nee ñëw ma doo ma mais mais pareegu ma moom laa la wax rek Karim nañ dem ma ne la xa pareegu ma da nga ma ma naa man Karim kon dem naa te ñun. image yu Sénégal ak góor jigéen ñun amul kenn amul fitu yëpp ñu sax bay taxaw di xalaat ay fi affaire góor jigéen Sénégal. Sadji dafay jël ampleur et l'État a euh, a commencé à comprendre parce que dañ ko def coloration euh, corrélation ak euh, diine ji bu ñu demee ba ay xalif généraux. Mhm. commencé di signer ay pétition mhm. euh, dangay dégg sax suñu maam Ahmed Khalifa nee na sëñ Mountakha amul seen jot. Mhm. <laughs> sëñ Mountakha waa sëñ sëñ bi mbub wane na fu mu signé. Euh, Serigne Babacar Sy Mansour. Mhm. moom it euh, génn na wax ci. Mhm. dajale yebal Serigne Babacar Sy euh, Abdou. ñu ciy wax mu leer na lii dafay nekk problème mu diine ji ak homosexualité. Mhm. donc pour l'État c'est quand même une chose assez grave pour sa crédibilité ak sa notoriété bu ñu demee ba état bi commencé di sentir menacé il a le droit d'avoir des répliques mais par exemple. bi ñu laajee président Macky Sall sur un plateau de TV5 ou de France 24. ITélé ITélé bu nekk France dafa wax ne ils n'auront pas de problème en tout cas avec l'État. Mm-hmm. mais pour la population leeru ko ndax mm-hmm. dinañ am problème wala déet. Mm-hmm. te boo seetloo dafa mel ne ñiy def mbiri ngóor jigéen yooyu dañ koy diir. ndax gàmmu dafa am Medina. Mhm. ba ca ëllëg sa. am benn école bu nekk bustaan ñu dem fa di mariage. Mhm. ña doon mariage ñii dañ leen a jëndal ay billets d' avion ay policiers ñoo leen filmé ah ndax bañ pratique yooyu. Mhm. mais dañ leen a jëndal ay billets d' avion ñii dem Amérique ñii dem Canada booy ñu ngi dellu si waat ndànk ndànk di retrouver waat seen ay famille. Euh, bërki démb bi Sénégal di fubal ak euh, Burkina. ci jumaa ju nekk xaw ma fan. Mermoz Mermoz la ñu fekk ñaari góor jigéen. ñu doon sëy mhm. fii ci jumaa ji nekk euh, jumaa ji nekk fii nii mu tudd grande mosquée mhm. Mhm. amoon na kaabum dafa mel ne dañu cible diine ji donc droit de réplique bi boobu ngeen am dafa mel ne mënu leen a am njariñ lu le débat de l'homosexualité est abordé dans la grande place publique parce que loolu mooy seen première euh, combat ñoom mooy naka la ñuy def ba ce débat soit un débat posé bu ñu ko posé ba pare nag après il faut utiliser des arguments pour convaincre soit utiliser des influences utiliser des stratégies utiliser une loi pour barricader le tout sax donc leur loi est en marche et vous est-ce que vous n'êtes pas en train en quelque sorte de solder leur combat parce que France bi ñu légaliser l'homosexualité wala euh, adoption des des couples homosexuels dafa am ñoo xam ne dañu bañ ba tëdd ci naaj bi dañu def sax ay marches pour interdire ko mais terewul am nañ gain de cause finalement. Mm-hmm. est-ce que combat yi ñu du gën a ñoom seen seen seen jëfin ak seen doxin. Pape Sidi ça dafa am loo xam ni il faut gars yi comprendre ko man déjà côté religion bi dama wax ni du benn religion Pape Sidi Fall parce que dëkk bi aussi dañ ko bokk ay chrétiens bokk ko ak ñeneen ñoo xam ni duñu am duñu ay chrétiens duñu musulman mais mm-hmm. te ñoom dañoo signé pétition bi quoi c'est-à-dire la côté religion de côté humain nit rek bu góor ñi góor ñi see jigéen ñi jigéen ñi see àdduna bi ñëppay dee après bu ñooñ dee jeex na keneen du judd am keneen du màgg kon kon mooy def ay kan mooy kan ay doom léegi wàllu religion c'est religion boo demee si les chrétiens amul benn religion christianisme boo xam ci christianisme wala bible bu accepté homosexualité mhm. nga jógee fa nga ñëw ci islam moom moom dafa leen a ko criminalisé moom moom dafa leen a rendi moom parce que dafa ni góor jigéen dañ koy rey donc kon su fekkee ni ñoom dañoo dem ba am sañ-sañu taxaw di def ngóor jigéen di ko def grande mosquée di ko def di cest di par rapport ak li nga xam ne mooy xew parce que dafa am ay góor jigéen yu ñuy jàpp di leen la droit de l'hommiste la loolu dafa am benn image bu muy wane ci niveau international bët bu ñuy xoolee Sénégal ci liberté bi ñuy wax ne moo am Sénégal te Macky Sall wax na ko léegi liberté boobu nag ñun dañ ko bëgg a xamal ne ko c'est-à-dire liberté bi dafa am bi daa am fu muy yem mooy ñun sénégalais en tant que dëkk boo xamante ne dañu am ay valeur dëkku jàngu bi Serigne Touba Alaaji Malick Baye Niass dëkku nit ko xam dañu am ay valeur am ay principe am ngëm-ngëm ñun du ñu nangu ngóor jigéen te du yem rek si ngóor jigéen léegi nag su fekkee ni ñoom ah dem nañu ba yegg ci mën a fexe ba ñun ñoom ñu jàkkaarloog ñun homme politique lu musul am Sénégal taxaw ne loi bi fi nekk doy na maanaam depuis 1969 wala 65 loi bi fi nekkoon doy na loi boobu kenn du ko changé ci la ñuy yem te yow bu dee loi bu ñu war a changé. ngóor jigéen lan la koy yàqal parce que ay loi d'habilitation Macky def na ko ci def crime def euh, loi bi ñu mujjee dugal fii nii def na ko ci saa ay cest bu amee dara loo xam ne moom dafa bu ñëwee lever immunité parlementaire euh, euh, majorité bi day taxaw ci saa rek defal ko Macky bu dee da ko soxla pour koo xam ne dafa rotal kaw mais bu dee lu toll ni jigéen ak fi Sénégal toll ci xeexu góor ak Sénégal li fi nekk ci kilifa mu taxaw ne ba tax war ñu mën a criminaliser homosexualité lan la c'est une question qu'on pose parce que moom Macky dafa la gendarmerie chez c'est l'institution qui parle si quand Macky euh, parle kon bu accepté ni am nañ ay góor jigéen c'est ça loolu mooy suñu problème ñun parce que moom soit day xam góor mais on a des homosexuels chez nous wax nga am na ay association d'homosexuels yu ñu mais d'accord moom laa nag na ko accepté moom il faut mu accepté ko parce que yàlla moo ne on a des homosexuels nous mooy moom accepté nañ ñu ko góor jigéen am na Sénégal mais ndax góor jigéen mën nañ fexe ba mu officiel officiel boo xam ni dañ koy mën a fësal nag di ko dooleel di ko dëgëral ñun loolu la ñuy dànqaafu dànqaafu tubaab bi dànqaafu ko moom parce que moom di ko wax depuis bi muy campagne naan Macky Sall ku ko fal di fal président boo xam day dooleel góor jigéen ñun ñu jàppoon ni politique la rek mais après on compris que ni parce que li ko jaral ba muy rey boppam ba jël ay imam woo leen xaalis dem taxaw di rey boppam pour ne non kenn du fi criminaliser góor jigéen ñu koy waxu waxu criminaliser moom muy wax waxu dépénaliser gis nga contradiction bi Sénégal xaar nga fi taxaw di wax ay waxu dépénaliser waxuñ la loolu waxuñ la ay bàyyi góor jigéen muy taxawal dañ ne nañ leen a criminaliser nañ ko criminaliser maanaam lan ngeen bëgg ci criminaliser boobu mooy mais dafa maanaam moom dafa jàpp ne criminaliser moom mooy ñu àtte la ku ku comme ku rey nit mais góor jigéen dafa rey nit ñoom lan lañ jàpp ñoom lan lañ jàpp moom Macky Sall il croit qu'il est plus intelligent que le prophète Mohamed sallallahu le président Macky est une institution qui représente les Sénégalais moom moo yor sa baat mooy dogal. moom la moo tax moo tax mooy décider à ta place waaw xam nga dafay dafa yor suñu baat ci démocratie ak ci république. looy su sunu baat. mais comme tu parles de république. Uh -huh. on ah. est dans une république laïque. pas islamique foofu laay ñëw Pape Sidi Fall xam man man je suis tout d'accord que moom moom mooy gardien de la constitution que ñun suñu kàddu yëpp moom lañ ko jox moom bu waxee c'est l'institution qui parle mais damay su waxee dafa am république am démocratie bu ma may man en tant que Abdou Karim ma nekk ci suuf mun ko wax ne ko soo fi nga jël foofu baaxul. sama kàddu mën a yegg ci moom mu xam ban position lañ am ma waxee ko waxal ko ay kilifa diine waxal moo tax mais góor jigéen ci boppam waruñu woon egg fii ci débat góor jigéen ba ay député toog ci plateau télé ji defaan loolu naan ay non loi bi kenn du ko voté loi bi yeggul sax plénière Pape Sidi Fall ana démocratie yow loi bàyyi ko mu yegg plénière bu dee euh, parlement lañ naan. waa réew mi ñoo bëgg loi boobu wala yéen waa. volonté populaire la manifestation levée bi dina la ko wan keroog bu ñu defee manifestation pour contre l'homosexualité gis nga euh, obélisque nu mu meloon volonté la askan wi ñoo ko bëgg kilifa diine yi tax sëñ taxaa dafa toog ñu julli aajuma ba ñu koy liiral discours am te affaire góor jigéen sëñ Mbaye Sy Mansour dafa taxaw wax si mais lan lañ bëgg leneen ñoom léegi nag ñun li ñu wax mooy léegi fan la Sénégal war a toll ba président de la République kaddu français yi ak kaddu tubaab yi ak kaddu UNESCO Nations Unies affaire yooyu war a ëpp doole kaddu kilifa diine Sénégal wala ëpp doole opinion publique bi. ma wax la ci sama xalaat. bisimilah. ngir réew. Mhm. bu yaakaaree ci réew ni moom. Mhm. la muy dundee ak la mu yoree réewam. waay dëgg la réew mooma munta banki loxo munta xëy xëy rek dakkal ko dafa am loo xam ne xel moo koy mottali. sa budget wu réew at ak moroom ma 4000 milliards la. Mhm. yow sa PIB wu réew maanaam sa produit intérieur brut. Mhm. ay 1,6 la da ngay jubilé wala 1,7. Mhm. maanaam bu ñu tëjoon suñu port bi suñu aéroport bi ñetti weer ñuy dee comme weñ. ndax ci li ëpp li ñuy dundee. fa dafay bàyyikoo ci yeneen réew. Mhm. ceeb diwlin saabu suukar meew. Mhm. ainsi de suite loolu mooy li ñuy dundee li des mooy li ñuy fay suñuy jàngalekat suñu armee suñu ministre yi suñu député yi bitim réew dañ ciy teg loxo léegi ñun waa réew mi comme on n'est pas productif dañuy obligé ratifier ay loi yoo xam ne dafay wax ne. man de d'accord naa ci droit de l'homme mhm. te droit de l'homme boo ko xasee ba ratifié mooy maanaam doomu aadama ngay xool xoolatoo orientation sexuelle am ou pas su ci virgule wala tarafatal ay boobu dañee mhm. yow dafa am leneen loo xam ne moom ngay jëflanteek mbootaayu xeet yi mhm. maanaam kër gi nga xam ne moo ëmb Union européenne organisation mondiale des nations unies parce que mënaloo sa bopp moomaloo sa bopp léegi nag si jamais nga def loi boobu di di nga fanqal sa bopp li daloon Abdou Diouf ñu woo ko rek ne ko xaalis bi dañ koy yokk dévaluation nana nii nana na parce que il, il peut rien y faire il a mmh. les milliers mmh. nos gouvernants en Afrique ne peuvent pas avoir cette liberté parce que productif ñu mënuñoo dundal waa réew mi mmh. mënuñoo fay waa réew mi ndax amuñu koom boobu di dugg est-ce que jël ngeen en charge paramètre boobu bis bu ñu criminaliser woon homosexualité homosexualité euh, da ngay gis ne mbir mi yëpp day rës pour ñu criminaliser homosexualité il faut que ñu nangu ne ñun dinañ mën a bay pomme de terre bu mën a dundal 16 millions de sénégalais yi. Mhm. atum la yàlla. Mhm. dinañ mën a am essence boo xam ne même bu ñu ko jëggaaniwut bitim réew. Mhm. dañu jëflanteek benn réew waaye dinañ ko am ci suñu biir tant que loolu amul Karim. ce combat est perdu d'avance est-ce que tu es dafa am loo xam ne man d'abord euh, xam nga ma la wax ne tout est <coughs> ma la ko sànq xam nga Pape Sidi nu nous sommes dans un pays boo xamante ni nit ñi dañuy wax ni Senghor moo gouverné woon tubaab yi ñoo ñu ko forcé woon après tubaab yi Senghor forcé après Abdou Abdoulaye Wade forcé boppam Abdoulaye Wade Macky Sall ñëw di yor ba nekk président Wade il a été moom la non moo ñu forcé il est bien li mu gouverné en tout kenn du ko fi gouverné mais moo ñu forcé boppam Abdoulaye Wade il a gouverné nice Abdoulaye dafa dem ba dernier moment xam nga mu jàdd gauche ticket bi ticket te loolu nguur mooy def loolu quoi en réalité parce que euh, le pouvoir rend fou mais Abdoulaye du débat li ma bëgg a mooy lan mooy ñun naka la ñu mën a waxee boo toogee ci rajo bi sax di wax wala télé bi def benn faute grammaticale sax ñu xeeb la ne ñoom ñoo jàng sol costume yi toog ci bureau yi ñoom ñoo dem am ay euh, doctorat en nangam sangam ñoom ñoo def la politique ñoo jàng politique. Macky Sall tey boo ko seetoon doctorat am nangam sangam la am na lu mu mokkal ba kenn xamu ko boo demee ministère yi et tout mais c'est quoi le problème en réalité ba ñoom mënuñu gouverner dëkk boo xamante nii dëkk bi demal boppam dëkk bu am pétrole am or am zircon am uranium am tur yoon Kédougou Kédougou boo fa demee à ouvert boo sànnee xeer xeer bi lay jox sonorité air fer tellement ndax richesse. Falémé xoolal ma la xam nga tur chaque jeudi les les informations xam nga tur bu tur bu. Mhm. richesse la bu nekk Sénégal. Mhm. tur bu dañ koy utiliser genre euh, këriñ la quoi boo xam ne ci suuf si la nekk. géeju Parcelles Assainies bi rek. manganèse nga sable siliceux lépp lu luy richesse la may na ko Sénégal léegi yow frère dëkk bu mel ni yow naka nga ko mën a gouverner nga ne yow da nga jàng yow maa xeeb politicien ak intellectuel bu Sénégal yi a xeeb mbaa bu yow nga ne da nga jàng yow nga ne yow jàng nga yow ba am say ah, yow def nga jàng nga ba am say diplôme nga ñëw def politique nga toog ci pouvoir yow mënoo fexe ba pays boobu indépendant mënoo fexe ba yow amul leen loo mën a produire saabu sax dañ la koy indil diwlin sax dañ la koy indil mais c'est malheureux <coughs> nañ ma wax léegi lan mooy njëriñu kon léegi nag loolu bu fekkee ni nag émergence la maanaam bu saxee ni Sénégal bu ñun accepté bu ñu bañee nguur jigéen dañuy am. mais ñu ngi defar tali ñu ngi tabax stade yi. ok ñu ngi defar. Euh, ok d'accord d'accord. mais lan la Sénégal am ci aide yi ko puissance étrangère di jox ba tax ñu war a mën a accepter góor jigéen te même su fekkee ni sax am nañ ko tey war ñu ko accepter waxtuma laat amuñu ko. boo boo dakkalee aide yooyu. Pape Sidi Fall kilo ceeb mi ngi ci téeméeri dërëm lu musul am 500 francs la kilo ceeb di jar man mii doxee maa ko jënd bërki dem man tuuti may jooy xale dafa ma laaj jënd ceeb ma jox ko 1000 francs ko jënd mu ne ma kilo ceeb téeméer lay jar damaa yéemu dégguma de cest di léegi kon man wax la yow déjà yow amoo dara. yoo amoo dara li li nga am si richesse utiliser wu amoo xam-xam bi parce que tu es un analphabète ci loolu. yow loolu làkk français mooy tax a am xam-xam waa français yëpp am nañ xam-xam. non mais xam-xam transaction boobu dommage boobu ngay tarre ma ni boobu noonu ñu dem ba toog na ñoom am nañ xam-xam léegi ñoom ñu toog mënuñu gérer dëkk bu riche nii 17 millions d' habitants. 2023 la ñuy njëkk a laal. Chine lañ xaw ma 14 yi kese. kon léegi lan moo tax ñu war accepter homosexualité kii nous le disent lan fan la Sénégal yegg léegi émergence d' accord na dëkk bi nice na tali yi rafet nga ne boo nee basculer sax yegg fa la neex dem Touba ñëpp di nice waa léegi ok <laughs> léegi dëkk bi su nice ba pare est ce que loolu jar na ñu nangu góor jigéen comme li Pape Sidi wax rek man damaa jàpp ni ñoom comme comment dire Pape Sidi daal ñun dañ yaakaar si ñoo xam ni tey jii ñoom ñoo naan. micro micro micro parce que Pape Sidi Pape Sidi dafa ni ñun dañ nekk pays boo xamante ni dañ yaakaar si benn pays boo xamante ni moo naan ñu xool leen fii ñu xool ko te ñooñu tey ñoom dañ tënku ci droit de l'homme ñun tënku ci charia quoi. Mhm. ci côté religieux bi waaw donc est-ce que nekkul euh, comment homosexualité ak genre et autres xam droit de l'homme yi ñu teg ñoom moom moo boo xam ni très respecte charia moo fay dox góor jigéen dafa am dañu lay rey musu ba léegi ñu ngi liggéey ak américains yi amuñu benn problème Cameroun gii Arabie Saoudite day sori Cameroun tanewuñu dañu criminaliser homosexualité Ghana dañu criminaliser homosexualité donc c'est quoi le problème ñun ñu ne ñun Sénégal bu ñu criminaliser homosexualité du ñu lekk ko a sooy nañu yéey ay xeer émergence bu àndul ak euh, valeur ñun bëgguñ ko ñun foofu lañ bëgg dellu si loolu rek lañ bëgg dellu si moo tax pour ñu leeral leen ñu xam parce que Pape Sirifal man c'est qui me fait mal xam nga lan dañu jàpp si kaso bi benn waa ji tudd Matar Joxaane ay benn waa ji tudd Ibrahima Ly benn waa ji tudd benn waa ji tudd euh, ay ay nitu ñoo xam ni au fait dañ ñëwoon ay sunna la ñuy dund quoi parce que ñi dañ doon dem Nigéria di jàng alxuraan ñi demoon Mauritanie jàng alxuraan ñu jàpp leen tëj leen ci kaso bi quoi condamné leen tëj leen ay 20 ans ak fi technologie toll état indul benn preuve buy wane ni ñii kat ay terroriste lañ te boobu léegi jàpp nañ fi góor jigéen yi tëj leen benn weer 15 jours bàyyi la ñu ñibbi c'est-à-dire léegi da ngay gis ne imaam ndox convoqué nañ ko léegi góor jigéen yi sax ñoo ëpp valeur imaam ak jàngalkatu alxuraan yi parce que joxaane jàngalkatu alxuraan la te yoon ci almoam sala sala dafa ni ko jàngale léegi Sénégal est-ce que ñu ngi bàyyi xel jàpp ay nitu ay nitu diine ay nit yoo xam dañuy jàngale alxuraan ay nit yu am valeur ay imaam ndaw ñoo ni convoqué ba pare góor jigéen ñi président bi ne kenn du leen laal est-ce que Sénégal ñi ngi seetlu parce mais, que loolu président Macky Sall di wax dañ koy jaxase ak nit ñi vivre sur cet angle c'est grave mais kaa ma la mhm. Karim je suis de tout cœur avec le combat parce que je, je me bats bec et pour je xam naa ni dama am benn information bu ma am sax boo xam ne euh, mën naa la ko wax mhm. góor jigéen du yow yaay problème bi du génération bii ñu bokk mooy problème bi mhm. xam nga ñan ñoo ëpp góor jigéen ci Sénégal 70 pour cent des homosexuels du Sénégal ont moins de 16 ans soixante-dix pour cent maanaam téeméeri góor jigéen yoo jël juróom-ñaar fukki amaguñu fukki at ak juróom-benn mbuur xaw ma war nga xaw ma ban zone la ñu wane ñaari góor ñuy fóonante ba pare filmer ko def ko statut WhatsApp parce que dañuy génn le gars que j'avais reçu ici muy wax ci affaire problème mu préservatif yi parce que 17 millions de préservatifs ci réew moo xam ne million millions d'habitants la am na ñu am soxna y a problème je l'invite pour parler de ce chiffre mu ne ma sida bi mu ngi rey xale yi. te li ci ëpp mooy ay góor jigéen lañ te assumé wuñ ko waxuma ñu mais il faut que ñu xam ñu sensibiliser leen te préservatif yi doyul siddaa bi ñi mu gën a jàpp mooy xale yu góor jigéen yooyu. Mhm. parce que lan moo leen ciy dugal mooy da ngay gis koo xam ne ngor bu nekkul ci yow ak ay valeur mhm. yooyu ngeen di defendre mhm. bu nekkul ci yow ñu teel a ñàkk suñuy doom. dañu jiital la bien matériel nit dafa sàkk xaalis ba pare daw riir wutali xaalis di ko jaamu. Mhm. da ngay gis koo xam ne day dem menee béru deux trois fois ñu fay ko deux mille francs mhm. mu gis koo xam ne da koy woo ne ko kaay defal ma nangam ci saaw yaram. ma fay la cent cinquante mille. Mhm. bu demee ba mu yàgg mu def ko liggéey bu dem ba mu yàgg mu ciy jël plaisir mu ciy loolu la ñuy wax de la des à l'habitude mu dem ba moom dafay dépendant dafay accro. léegi nag pour ñàkk suñu bopp balaa influence di jóge ci bitim réew munuñu ko fànq munuñoo def ay loi radicale ci ndax suñu réew dafa yaakaar ci réew ni moom te valeur yi mhm. maanaam ñagatu da ngay gis koo xam ne day jur doomam bu ne salaamat demal ca mbedd dama faw yow e demal jàngi mhm. journée continue xamoo lan lay def ñu ngi ci appartement yi donc ça devient les paramètres sont euh, nan laa koy wax dafay bàyyi ko fu nekk fii dañuy c'est-à-dire aujourd'hui un programme bien ficelé et bien défini mhm. da ngay jaar ci tëj naa buntu état bi ñu jaaree ci porox ndollu xale yi mhm. nga ni tëj naa buntu xale yi mhm. ñu jaaree ci porox ndollu euh, ñi majeur ba pare di leen gëmloo ne leen lii c'est la liberté lii c'est la nangam nangam nga tëj buntu boobu ñu jaaree ci célébrité yi na leen éduquer les gens de manière subtile intelligente mais avec le temps dinañ dem ba comprendre da ngay dem ba jigéen yi seetaan télénovelas yi dañuy dem ba bu ñu gisee góor jigéen du graaw ci ñoom. dañ koy accepté. dañ koy dem ba accepté ko ci seen mm-hmm. xol parce que wan nañ leen ne leen kii ku baax la kii dafa gentil pourtant li ko dal du dara ils ont essayé de faire de telle sorte que sa mentalité la ñuy jël ñu modifier ko ñu defar ko ba yow nga accepté ko ci sa xel boo ko accepté sa xel le reste ça va être lettre à la post sa passe crème. Ah, Amatouba dafa ni à force de voir le mal <coughs> mu ne ça devient banal. Hmm? xam nga ñun tey suñu problème lenn ngi naan xale yi. après ñu jaar fii ay responsable man je te parle de xoola responsabilité askan wi responsabilité mooy lan professeur xale bi ngay jël mu dem jàng ci école xale bi temps bi muy def ci école bi du ko def si yow xale bi ni muy xamee professeur am du ko xamee yow maître bi du ko xamee yow noonu xale bi temps bi yëpp journée bi man sama doom par exemple mais day journée day journée bi yëpp moom 16 heures lay wàcc donc gis nga 8 lay xëy ba 16 heures 18 heures lay wàcc léegi bu fekkee ne man yóbbu ma ko xamante nii fexe nañ ba alxuraan fa doole wala bu dee chrétien la catéchisme bi am fa doole ñu fexe ba valeur yi mu am éducation boo xam dañ koy jàngal xale yi carrément à bas âge ñun suñu combat loolu la Pape Sidi Fall mm-hmm. maître coranique yi nii man ñun li ñuy xeex mooy ñu dugg assemblée nationale fexe ba boole ko système d' enseignement Sénégal alxuraan bi fu ñu ko jàngale xale bi bu jàngee alxuraan à bas âge mais xale bi dina xam ni mais quand il est tout petit xale bi lan la fay jàng ay ding dong de bu doon jàng abasa mu jàng abata sa ndànk-ndànk mu feri indi bu xam alxuraan li yàlla di wax lan la xam lan mooy valeur yi xam parce que boo jàngee diine mu nekk sa base boo jàngee diine am na loo xam doo nekk Pape Sidi Fall doo si ne contrôle bi ñuy bi am école yi am ni ñu ko structuré buñ ko buñ ci boolee alxuraan bi ah yi dinañ mucc te loolu mooy combat bi d' abord mooy à bas âge xaaral mu ñëw. valeur dafa jafe dem Karim. non c'est-à-dire xam Sénégal joxe wu fi 300 millions Ibop bi tas. Pape Sidi Fall man xam man man non. léegi ñooñu mën a am 10 milliards. fëgg ko fenn. non parce que c' pas structuré xam bu ñu nee imam bi dafa jël xoola xam nga loolu loolu c' est pas c' est pas bien structuré rek. waxul yii nii xale yi jàng alxuraan ñi ñu ñoom imam Ndao jàngal alxuraan ñoom oustaz Matar ay association ardaara yi ñoom ñëpp bu ñu leen jëlee ministère boo xam day lijjanti tout ce qui est religion jël ay imam teg leen ñu leen ñuy xool leen càmbar ñu def ay séminaire ñu xam naka la ci école yi ñu jël ko ci école yi boole bi. ils vont proposer la loi de la laïcité. waaw la laïcité moom. la religion n'a rien à voir avec les affaires de culte loolu la ñu ko tuddee nu ñu sax judaïsme juif. na loolu ça n'a rien à voir avec la religion. Pape loolu lu ñuy xeex parce que laïcité dañ ko war xeex àdduna yëpp xam ko Sénégal dañu war xeex laïcité parce que la laïcité wax naa ko ba taay ne la définition de mooy la religion de ceux qui n'ont pas de religion te ñun dañoo am religion ñii ay chrétiens lañ ñun ay musulmans kon lu tax ñu war accepter ñu ñuy imposer loi boo xamante ni la laïcité la religion ne c'est pas dafa nga takk ñaari jabar. seen candidat bi gën a virulent mooy Zemmour ci bu dee ñaari jabar lu ñu wax ñoom lu ñu wax ci polygame. c'est interdit par la. lu tax tubaab yi ñoom ñoom ñu interdit muuru interdit polygame yëpp ñun yëpp bu toll ñun ah ñun ñooñu dañuy imposer ngóor jigéen ñun. ñu ne ñu du ngeen ko wax yéen kenn du ko fi kaase suñu président taxaw ne day défendre loolu ñu ne nañ ko criminaliser non attends. boo ko kaasee ci internet bi sax ñu bloqué la li ma jaaxal mooy gisuma man ci gouvernement benn gouvernement gisuma ci tubaab man. lay tubaab dafa grave moo tax may la enseignement bi système d'enseignement bi foog ñu changé ko parce que dañ lay ba nga jàpp ni yow tubaab nga quoi am pas-pas doo am tawhid doo ragal yàlla te loolu mooy tax ba parce loolu li ko waral mooy réeré sa diine te loolu la imam Ali Badara Ndao yi di loolu ñoom Oustaz Matar Sarr yi defaraat. le mal est profond. donc moom laa la donc léegi bu ni xale yi à bas âge fexe nañ ba alxuraan bi fekk leen foofu dugg si école yi. mag ñi loi bi criminalisé bi géré leen léegi nag xamul xeexal yàlla loo xam ne mu neex yàlla laajul kenn résultat yàlla yàlla nga xeex après na nga indi déedéet defal li nga mën yàlla defal li nga mënu li ñu mën mooy lan fexe ba criminalisé bu ñu criminalisé li ñu mën mooy fexe ba alxuraan bi dugg si école yi li ci des ñu bàyyi ci loxo yàlla yàlla bëggul comme neex nekkal fu la neex defal la neex soo laaxatoo mais kenn du ko fi dëggal di ko dëgëral di ko fi doxal di ko imposer lu toll ni institution Sénégal ñun ñëpp ñu votel ko murid yi votel ko tijaan xaadir chrétien mu taxaw ne kenn ko teg teg ko yi kaso bi ne kenn du ko wax mais loolu pour lan Sénégal yi tax ñu war a seetaan loolu lii moo lii moo tax problème Sénégal lii nag du moroomu coupe d'Afrique ak coupe du monde lii pas-pas la coupe kenn du ko lekk xamp ko nii xam lu am solo mooy bu ñu gagné coupe bi mu jëriñ football bi mu jëriñ football bi footballu Sénégal pour avenir laa la wax de mu bañ a yem ci Sadio Mané kese bañ a yem ci El Hadj kese bañ a ci Aliou Cissé mu nekk luy jëriñ footballu Sénégal fii ci xale yi defar ci football bi ci nawetaan gën a structuré ñu gën a dëgg dëggal footballu Sénégal mais ñu romb ko xola ñu xam ne essentiel bi mooy valeur parce que footballeur noo mën a mel man soo nekkee góor jigéen fi mu man dugalal quatre-vingt-quinze bi indil ko du la man sax <laughs> dama bëgg ñu xam loolu quoi pour ñu xam ne loolu moo ëpp doole ay coupe na Sénégal yi génn comme ni ñu génn ci coupe d'Afrique bi euh, le 20 waaw moom laa def euh, ñu criminaliser góor waaw na Sénégal yi génn comme ni ñu génnee ci coupe d'Afrique bi dëggal xoola wan carrément ni ñu opinion internationale wan opinion wan Macky Sall wan pouvoir bi ne leen lii opinion publique la lii volonté populaire la. vous avez l'autorisation non l'autorisation la. am ngeen autorisation. non loolu loolu loolu biti la fanaan c'est-à-dire am nañu autorisation yàgg na bañ ko waxee ñun c'est-à-dire manifestation yi euh, yoo xamante nii euh, Serigne Mountakha da da caa da caa joxe kàddoom sëñ May si Mansour joxe ci kàddoom waa jàng bu joxe ci kàddoom imaam yi ay imaam ñoo si nekk ay imaam ñoo fa nekk imaam xam nga imaam yi xam nga sama scénario sax bu may manifester ma ñu ne non Karim la ñuy taxaw def discours waxtaan expliquer nit yi ne loi bi dañu bëgg ñu criminaliser ko te lii moo tax lii wan Macky Sall ne xoolal mbooloo mi taxaw fi yëpp dañoo bëgg nga criminaliser homosexualité parce que comme da nga dëgër bopp tubaab bi dañuy wàññaa sa loxo ñu tamit dañuy wàññaa sa loxo ñu xam ñu nag tubaab bi kan moo ci gën a jege sa loxo loolu kese la moo tax ñu def manifestation bi nii criminaliser by force ce ce 20 euh, février à la place de la nation. place waaw fii euh, place Sidi Lamine Niass. la Sidi Lamine Gueye. man noonu laa ko tuddee Obélix. <laughs> incha allah yàlla ñu ci yàlla yóbboog jàmm. Mm-hmm. di euh, ndokkeel ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci komba wu euh, ànd sàmm jikko yi. Mm-hmm. ndax euh, jikko rek mooy doomu aadama boo ko ñàkkee moom ñàkk nga lépp. Mm-hmm. Ah, Karim était notre invité aujourd'hui pas pour parler de politique mais pour parler. de valeurs de de la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal ce qui une requête euh, une pétition qui, a, qui a été signée par l'ensemble des chefs religieux du Sénégal mmh. pour euh, pouvoir gérer cette question de l'homosexualité qui encore demeure un débat sur le grand public au Sénégal. Mmh. Bon, ils vont, une minorité va essayer de te faire comprendre que takk ñaari jabar ça se fait pas parce que vous êtes des sauvages. <laughs> mais góor ak góor buy sëy ah ça c'est la démocratie c'est la liberté ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. c'est assez compliqué. dañu dikk fekk ñu ak suñu ay aada fekk ñu ak suñu ay culture ñu waxtaan ak ñun des fois ñu def sensibilisation des fois ñu traité ñu de sauvage nañu jigéen bu ñuy xarifal xarafal pour mu téye ndawam loolu kenn du ko def c'est barbare c'est sauvage on a di ok on laisse léegi nag dañu toog ba mu yàgg ñu ne góor ak góor buy sëy loolu dara nekku si. ah parce que ñoom comme loolu la rek Pape ñoom c'est des sociétés privées qui se battent contre les religions. <coughs> par le biais de la corruption quoi tu vois Karim yow mm-hmm. xam nga bu baax li ma lay wax. bien si tu de tous tes droits tey di ak sa diine lu mu la lu mu la wax pour askan nga nga nga def ko quoi. tu mooy waral tey ay góor jigéen yeeg genre et tout quoi moo tax daal yàlla nañu yàlla may euh, imaan xama ak. Euh, c'est très important. loolu quoi ce qui est très important c'est ce que nous allons regarder aussi un <laughs> jeune réalisateur du nom de PND Ndiaye il passe dans les rues de Dakar il filme des choses et on partage avec vous n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube ça s'appelle Devant ma caméra si vous écrivez ça sur YouTube vous allez voir plein de choses c'est vraiment petit petit petit nan la ñu mën a def ba comprendre devant ma caméra de PND c'est tous les mardis et tous les vendredis sur la 2STV dans le man ba léegi su ma jox mu jëlu Sénégal dama ne rus njëgu dund gi di aju ba tey nit ñi di feebar di soox bëri njàng mi di soox bëri problème njàng mi di soox bëri problème taux de chômage extrême jeune yëpp di dem te ñoom ba tey ñi ngi feete alternance deux ans ñuy tatu nekk di def ay promesses yu amul sens fi ñu jëmale réew mi du neex ci ni ma ko gisee waaye du tabaskee ngi ñëw laissons mouton pisser Un travail remarquable de pire. Regardez ces jeunes Sénégalais qui travaillent d'arrache-pied matin, midi et soir. Mhm. mais le malheur c'est que dañu nekk fin fond wu maillon wu chaîne bi boo jaayee ab journal sax mën nga am juróom nga cay dàq mbaa ñetti dërëm. te terewut loolu nga yaakaar ngir dundal sa njaboot ce qui veut dire que on a des jeunes déterminés motivés. dañoo gisut ci lu ñu jàpp koy bu ñu ko gisoon sax daan ci gën a góorgóorlu euh, c'est ce qui se passe c'est le décor du quotidien de la rue hein, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de voir ñi namoon Sénégal mën nañ cee porox ndollu xoolaale zélo def waaw tey moom li ma indi euh, comment dirais-je défi la juste défi la quoi boo xamante si ni dañ ko doon relever man ak euh, sama copain max parce que y a boo xamante si nii daf ñu toppoon naan yéen seen caméra cachée doo leen ma a jàpp doo leen ma mus a jàpp tu vois sonal ñu fàtt ñu fàtt ñu quoi au fait ñu boole kook benn jigéen boo xamante si nii. ngay gaarwaale euh, lan. non man man gaarwaale wu ma la yow sa sa aju maa ngi ñëw ci aju may alaaji <laughs> toogal rek xaar léegi mu topp ñu topp ñu xam nga doole ñu dooleel ma jàpp dooleel ma jàpp affaire bi xam nga dem ba commencé ñu tympaniser quoi ñu jox numéro benn benn gel euh, pour ask mu mu doxaan ko ci pet mu jëlee ko Grand Dakar ba jiili Mbay quoi bi mu fa ñëwee ñu la fa fekk ñu taxaw bu baaxee ñu dem moom laa <laughs> on oh, regarde ça les gars ah, man de bu doon man tamit ngeen jàpp ma de lii moom ko jàpput baaxut góor day bëgg jigéen waaye loolu àdduna Aristide Thioune. man la sax de. Ah, dama mel la xàmmee ci chose. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Non. Kay, kay, kay. Wait, wait, kay, wait. Eh, kay. Wa, wa, wa, wa, wa, wa, kay. Wa, kay. Kay, <laughs> kay. Kay, wait. Wait. ma xëy kay mën na ko mi ngi ne kay saa yi nii waay waay taxawal yow xamoon nga ne la waaw kay kay waay waaw taxawal waay saa waay taxawal sa sa yow kay sa kaw def lii de kooku rëbbee jàpp ah, na laa jàpp bu ma xale bu mool tooy ca ko damay nangu de indil ah yooyu tamit nag bàyyi li ngay def cëppal. oh oh Moussa boo defee li la bi wax yàlla dina la musal ci bari. Eh, mais boo ma man dinaa nangu de. non c'est-à-dire am na dafa am ñu na la dimbali si lii quoi mais yii dafa baax aussi day dimbali ñi ñu bëree bëri ñu moytu bu baax lu leer lu leer très important baax na <laughs> a <laughs> euh, wax ci mbir góor jigéen yi ngir denk ko mboolem sénégalais mooy tey ñu ñu ëpp doole mbaa ci doole buñ koy wax du du pas-pas du diine du jikko ju baax doole buñ koy wax ci àdduna bi léegi mooy ku la ëppale xaalis mhm. da gis mbootaayum diine sax xaalis juux fa mën na koo tas rikkeeku ci seen pas-pas dëgg la léegi nit ñi nag dañu am loo xam ne dañ koy soofantal moom mooy le cocon familial maam dig digalu maam yaay baay bàjjan tànta ak doom yi nañu xool ku ci nekk li nekkoon ci say way jur ñu def ko ci yow nga fexe ba yóbbu ko ci sa ay doom muy ci yar mhm. ci ngor ci sutura ngor moom mooy loo xam ne wax dëgg yàlla sa ngor mayu la ko sa deretu ngor mayu la ko loolu la wolof naan jombale naa saa bopp loo xam ne bu ma koy def bu nit ñi dikkee ma rus jomb naa koo def bu fi kenn nekkul nit ñi bu ñu amee jombute googu boo xiifee sax nga mën a maw takk sa biir mu bañ laa jaral jaay sa ngor ndax Baye Abdou Lahad Mbacké daana wax naan koo dégg ñu naan jaay na ngoram daa fekk amut ko woon mais bu ñu fexee ba xale yi ñu def ci ñoom ay valeur ak ay vertu yu wér dina leen dimbali. Mhm. ngir ñu mën a gànnaayoo parce que yaa réussir dans la vie et réussir sa vie. réussir dans la vie mooy am ay kër yu bari. Mhm. ay soxna yu bari. ay nag yu bari ay oto yu bari ay jabar yu bari ay eh, nangam sangam mooy koom-koom bi. Hmm. réussir sa vie nag Baye Alassane Dieng ca Njaareem nee na. na nga fexe ba li sa baay ak sa yaay def ci yow ci yar ak teggin ci ngor ak wormaak sutur ak teraanga nga def ko ci sa ay njaboot ñoom it ñu mën a perpétuer loolu ci seen ay njaboot c'est très important parce que c'est la seule manière aujourd'hui pour nous de combattre l'envahisseur parce que est à nos portes il toque et il mais bu dikkee na fi ñu wow ne béton ba bu dikkee bu waxee mu duggee ci nopp bi génnee ci nopp bi mais bu desee ci suñu xel ñu ciy xaw a hésité mbaa di ci réfléchir rek société bi yëpp nar a yàqu. Karim merci d'avoir répondu à l'invitation. merci beaucoup Pape Sidi wax rek euh, ni gars yi ñu ngi woo. chaîne télé bu njëkk ci wàllu caada 2STV